salaamaaleykum mbokk yi sa safoo seetaan Click Dakar 221 Wassare TV yaakaar naa tey nag euh, tey jëmm ji jàkkaar lool jar koy présenté àdduna jar ñu koy présenté Sénégal ñëpp xam nañ ko yaakaar naa daal la mën a entier rawatina nga dem Dubaay naar yi xam nañ kenn mooy soxna Aïda Saliou le grand voyant macha allah tey nag macha allah ñoo këram ci weeru koor ku xam soxna Aïda mu Serigne Saliou le grand voyant xam ne social rek moo ko ñor social la ci lay jox yaakaar naa social bi préparé wu rek ci koor gi kese. douze mois yi nga xam ne suñu borom moo ko am soxna Aida saa yu xëyee mu ngi social mu ngi ci facture courant yi mu ngi ci facture ndox yi mu ngi ci ordonnance yi mu ngi ci ñi nga xam ne dañoo am ñàkk euh, fu ñu dëkk tey nag muy weeru koor muy weer boo xam ne suñu borom moo ko tànn ci fukki weer ak ñaar yi fonk ko trop ku ci jox ku woor ba ngoon jot nga jox ko benn tàndarma yool bi xam ngeen ko yaakaar naa soxna Aida nag développé ay millions ci ñàkkam ci loo xam ne ci alalu boppam alalu boppam nag muy liggéey loo xam ne macha allah dëkk bi yëpp xam nañ ko jot moo koy wax mu gàññe ko tey génn ko tey delawaat ko askan wi gis nga yaakaar na image yi yi daw ci écran bi tey kii dañoo war roy ci moom kii tey le président Macky Sall ku recevoir tey jàppale ko pour réew mi soxna Aida moo koy mu Serigne Saliou le grand voyant kon tey kii Marème Faye Sall nga xam ne social rek moo ko ñor cent pour cent mag fay Marème Faye Sall jëmm ji muy suñu yaay di soxna Aida mu Serigne saaliw bëgg Serigne Saliou ba mu jeex takk jëmm ji tey gis ngeen li mu def ci image yi ci ndimbal képp ku fi woon tey am nga li nga xam ne ay xéewal la du ma ko lim parce que mënu ma ko lim dafa bari ay saaku ceeb diwlin ak lépp lu fay dem am na ñoo xam ne ay bu xaalis tey fii dama fiy ñëw fii sama kër la dama fiy toog mais postetam bi barki Seexul Xadim lu ci nekk yaa fi lu dama fekk nit ñi rang fii muy joxe ba jeexal takk ba xañ ay doomam kon soxna Aida mu Serigne Saliou kenn du moom jëmm ji nag man dama koo bëgg waaye nag foog mu gudd tuuti ma dem ci kan ko xam ne da koo bëggal boppam da koo doomoo da koo jur muy kan Wally Ballago sekk doomu Papa doomu Sénégal doomu àdduna parce que ku baax rek dañ lay bëgg a jur waaye nag soxna Aida ba mu bëggee ne Wally la kenn bëggul ba ne Wally la ñëpp a bañ mu xaar ko fa tey macha allah tey Wally Ballago Seck le centre du peuple le soir du peuple tey kii sa yaay la sa lépp la da lay tiitroo moo la jur tey jaaga nampar rek la am kii moo la jur parce que moo la ñaanal guddi bëccëg ñëpp tëdd mu jël kurusam lu baax mu ne Wally tey kon mu lay tiitaroo Wally Ballago sekk maa ngi lay ñaan ci barke Serigne Saliou ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga gëm kii sa yaay la te xam nga ko ndimbal li tey la ko commencé déggante nañ déggante nga ak moom sa wàll mu ngi ñëw xam nañ yow ku ñëw sa kër xam na ne 12 mois yi nit ñu nii nii la ñuy kër ci ndimbal kon soxna Aida mu Serigne Saliou buy dox social ne Wally mooy sama doom yaakaar naa kenn du ne guleet kon dañuy jox rek mu nuyoo présenté wu du présenté sax parce que xam nañ ko mais mu ñëw social bi soxna Aida mu Serigne Saliou waa alhamdulilahi rabil alamina fa yàlla suñu boroom waaye damay nuyu sama bunt ci seexul xaddim di sëriñ Mountakha Bassir di ko ñaanal yàlla na fanam mel niw doj di ñaanal sëriñ sama waaja yàlla na yàlla yokk ay leeram njaboot gi mu fi bàyyi yàlla seen fan yu mel niw doj di ñaanal nag fépp fu kilifa diine kilifa aada nekk soxna ay lay ngi lay ziar chrétiens yi bàyyiwuma kenn Cambérène parcelle maa ngi frontière waaye sant naa ñëpp gërëm ñëpp di wax ne rek comme ni may faral di wax chaque jour nit njariñ yàlla def ma nag may porte de voix ndax tey àdduna bi wala réew mi àdduna wërngal képp foo ne soxnam Aida moom Serigne Saliou benn la ndomba wan mooy bi nga xam ne mooy soxna Aida moom Serigne Saliou mm-hmm. waaye mooy soxna Aida taalibe mooy soxna Aida mi xam ne sëriñ Saliou rek la bëgg sëriñ Saliou rek la yaakaar sëriñ Saliou rek a ko dooleel kon lu ma am ci askan wi laa ko indi bu safaan jotee soxnaa di day génn ànd kook askan wi waaye bu dara deful lu dëkk bi jaxasoo it soxnaa di day génn ànd ak dëkk bi defar ko ba dëpp réew dëkk bi ne tekk ci ay sarax ci ay yu mucc ayib kon bu ñu nee réew mi danoo nekk ci weeru koor kenn ku ne xam ni ceeb amul diwlin amul suukar amul dañoo ne ci réew mu kaa bu doy waar. e lii sama wàll mooy lépp lu ma dencoon dama koy génne delloowaat ko askan wi ba bu kenn jooy bu kenn jàmbat. nit njariñ kenn du ko macaroni kenn du ko soble kenn du ko pombiteer mm-hmm. nit njariñ man na sama njariñ gii ma am ak sama doole ji ak ci ni ma yàlla def ba àdduna bi yëpp di ma déglu. xool boo ubbi fekk ci soxna da ñëpp di ma safoo eh lu ma faye askan wi li ma leen mën a fayee mooy limay am ma fas yéene ba fi ma dëkk niñ may tiitaroo wi di ma kañoo di ma bëgg di ma sopp ma fayee leen ko ci li ma am li ma am dama koy denc bokkok askan wi bu nu jàmbatee ceeb ma ànd kook ñoom wuti ko ñëw indil leen bu ab ah, bu doyut ma dolli ba fi sama doole yam ak képp ku ma bëgg nag dama la ciy woo lii ma joxe tey samay doolay bopp la samay propre moyen la waaye képp ku bëgg soxna Aida wala nga yëg soxna Aida wala ngay mbokk taali taalibeem soxna Aida ngi lay woo ci li mu def nga ñëw jàpp ci te boo ci jàppee keneen ku mel ni man bokk ak man li may liggéey ngay vaillante ngay politicien ngay lépp loo ti doon rek yàlla wër sëgalal loo am looy denc am looy eh, jëfandikoo la ca des génne ko bokk askan wi ndax kenn ku ne bu ko defee ci quartier ba mu dëkk man jàpp naa ni kenn dootul yuuxu kenn dootul coow état nag du ay waxi kese état boo ci nekkee nekk cim réew doo xaar état kese da ngay génn jàppale état bi ngeen di dox di daje boo leen dajee lépp doon benn waaye kenn dëkk homme politique yi nag moom waxuma waxuma leen man ndax man fii ma dëkk pour man amul homme politique. ndax gisuma fi homme politique bu taxaw taxawu taxawu askan wi soxna Aida la ñu gis. gis gi nu ma gis nag dinaa mel ni ku nekk opposition. ndax nag maa ngi opposition ndax président Macky Sall mooy président. dama koy jàppale ci lii muy def ci réew mi damay jël samay propre moyen jàppale ko ndax Sénégal boo fi nekkee mu doon sa réew ëllëg si biir ñaan nga yàlla dur jur ci président yi ñaan nga yàlla jur ci jour yi te dama fi am doom muy porte de voix muy Wally Seck Faramareen bi kon kooku bëgg naa man yaayam ah ñëpp xam ne maa yaayam tey yaay yi bari nanu macha allah may ñaan yàlla yal na yàlla xeeb dolli waaye nag ba ma naan sama doom la boobu dama cee wéet mm-hmm. waaye tey xumb na dagan na parce que nag ku ko jurut mañaf la kon ñëpp dañ koy jur mm-hmm. moom nag waxtaan nañu mm-hmm. yéenee ma ngi ci biir social bi te loxo a ngi ñëw te bu ñëwee nii laa koy génnewaate jox ko askan bi waaye lii ngeen gis tey xam leen ne mbooloo mu bare ci sama ginnaaw te amaguñu te réew mi tar na te dañoo nekk ci moment boo xam quartier bi ñu dëkk banlieue la yëmbal ak may xaar kër masaar ak may xaar fépp may xaar te fépp dinaa fa dem ak lu ma am ndax du soxna Aida du parcelle kese soxna Aida àdduna la ñi koy bëggee dafa bari ñi ko xam ci social dafa bari ku sa bët xonq sa xel ci soxna Aida la jëm ndax am na ñu ko am ba pare naju ci nelaw ci waaye soxna Aida da cee li mu jot a yor as tuut te ñi ko koy jox seeni xol sedd nañu muy askan wi nga xam ne ñoom lay liggéeyal kenn jéppiwu am na ñu am mais na ma wuñ koo génne parce que buñ ko génne bu subaa karawaas bi da dal ndax li nu yor moomuñu ko. ala li jàmbur la te ña ko joxe seen xol sedduñu ci kon duñu ko def nii ma koy defee. man nag ni ma koy defee mooy askan wi ma ko jox delloo nañ ma ni ma macha allah kontaan nañ. sama téléphone bi démb bi ma dugalee sama vidéo yi. Mhm. TikTok Instagram. Mhm. clients yëpp dañoo jëlaat seen i fepp ne ma ñun ñëpp suñu loxo dina ci dugg mhm. ndax soxna Aida kon lii ñu lay jox. kon ci nii nga koy doxalee moo tax aajo yi di faju moo tax boo nee réew mi dinañ jël coupe bi ñu jël coupe bi soo nee réew mi dina dox dina dox ndekete liñ lay jox fii nga ko jëmee man fii laa koy jëmee. dëgg la macha allah woo nga waal ñoo xam ne falekat ñu woo leen muy say woo naa woo naa woo naa Marème Faye Sall ñi ko fi jël si ay jigéen lañu. jigéen ñee dugg ci waañi mm-hmm. fii nag dañoo xam ne soxna ay Aida moo ko fiy joxe ñëpp fi la ni daw si jëm dañ ko ci woo ndax tey nag wax dëgg yàlla ah moom man maa ko woo personnellement Marème fa Sall woo naa la képp koo xam tamit am nga yéenay def ngir yàlla kese tax ak Serigne Touba rek ak Serigne Saliou rek tax soxna Aida woo na la même ñi ma seqal vaillante bi sax dama leen ni woo. woo naa ñëpp góor ñi amaana am nañu yéenay def mais milieu bi ñu dëkkee dafay xat. wala woo naa ñëpp woo naa samay client woo samay nit woo samay xarit sama groupe yi groupe yi mm-hmm. groupe yi parce que groupe jàmbaari soxna da Saliou yi am na Touba am na dëkk boo dem ci Touba Gàmbi am na fépp mm-hmm. ñooñu tamit dañuy dajale ay parce que dañ ma koy jëndal sama groupe yi ñoo ma dooleel mm-hmm. ndax vidéo bu ma def ñoo koy tasaare ba ku ne jot ci groupe bi nekk Parcelles nag muy groupe boo xam ne xàmme nañ ci ku mel ne Lamine Mbaye seex peex yëmbal la dëkk Mamour Jum su ma limee damay juum jigéen ñi jooja faal asu gay ñande sama doom moo ubbi groupe bi kenn ku nekk dëkk parcelle yaa njuufa mag ñi bari nañu maire maire Issa su ma limee damay juum parce que lim la mais tête de yi il faut ma juum ma ma wax leen parce que ku la defal ku la defal def ñu ma defal da dafa rëy ñi samay yaay lañu ñi samay càmmiñ lañu defaluñ ma ko ngir daal dangay ngay dégg sax ku ne leen yéen ndonga soxna Ayda yi mais man ndongab Serigne Saliou laa te am naa cër ci sëñ bi ndax ci ndimbalu Serigne Saliou laay defee lu ma mën kon ku may defal sëñ bee tax cër la rek waaye billaahi jàmbu xeebuwu laa taalibe ndonga bu bu xeebu maa ngi woo ñëpp. incha allah tey yaay booy dañuy dem ci li nga xam ne mooy international la tey mu ñi nga xam ne toujours da ngay toog di ñaanal te souvent dañuy bëgg def social du ñu xam fan la ñuy jaar muy waa équipe nationale jour yi dañu bëgg a def social mais duñu xam fi mais ku ci mel ni Gana Gueye ku ci mel ni Gana Gueye dama koy woo ku ci mel ni Sadio maane dama koy woo ku me ci mel ne ah, nu mu tuddati ah, Bamba Dieng ah ndax Bamba moom Bamba jeexal nay wax moom Bamba Dieng moom jeexal nay wax waaw Aliou Cissé fédération bi parce que sarax da leen a war parce que soxna Aïda moo cité woon ñaata bii la Sénégal di am mhm. coupe d'Afrique bokk naa nañ leen dem vaar sénégalais yi xam nañ man samay commentaire bu ko kenn tëj man soxna Aida mu ma kenn tëjal ay commentaire parce que soxna Aida mbokkul ci vaillante yi tëj commentaire parce que man sama commentaire mooy soxna Aida bien bien fait joli fait brave man loolu laay dégg non non loolu loolu loolu soo koy dégg mooy Euh, sama moromu vaillant te bàyyi nañ loolu parce que am na ci ñu ma woone ma ñun ñoo doon sànni xeer mais neexul ba neexul ma yaa ñu mën nangul nañu ma te lii ma def képp ku ko nanguwul rek man xaw ma lan nga boo amee xol dina ma jaaxal parce que samay doole bopp laay liggéey joxaat ko askan wi man nag maa ngi leen di waatal ci daraja yi Serigne Saliou yéen équipe nationale woo naa ñëpp gis nga sama sociale bi ku ci dugal ku ci dugal sa loxo même boo musuma fayeeku sarax yii may wax ci national nationale musuma fayeeku lii may defar ci réew mi bu réew mi jaxasoo soxna yi rek la ñuy gis miir yi bi ñuy falu damaa génne wax ñaata nan la maire yi di demee lu xew ci réew mi soxna yi da génn na tey nag laa leen soxla ci sama social bi ci sama nag yii nga xam ne dama ko war a jox ci korite gi ñi amul doole ginaar yi ku am pomme de terre bu ma ko am soble waaye ceeb beeg diwdi ki koo soxla ak suukar tiital na borom kër yi nit ñi seen seen seen yaram daw na man jigéen laa damay dugg ci marché bi xam naa li marché bi demee nañ ma dimbali nag te taxaw ma te ku ne quartier bi nga nekk defal defal feem defal effort lii ñu génne di leen ko wan di leen ko wan ci baana écran yi xam nga pour lan la pour ngeen jàng ci pour gis waaye soxna yi da yàgg na koo def tawane wu ko dama bëgg na nit def feem ndax soo nee damaa def sax du ñu gëm ne da def lii ay preuve la mais maa ngi ñaan ne réew mi soxla nañu ku leen dimbali kër yi metti na borom kër yi mburu mi yokku na ba journée bi mënoo am mille francs boo ci bëggee boole jë diwliñ ju seer ceeb bu seer lépp lu seer mais ndànk-ndànk du ci président de réew mee ko laaj parce que réew dafa am nu muy doxee. réew dañu am nu muy doxee na ku ne dugal sa loxo ci côté bi nga féete. man nag ambassadeur laa ci kër Serigne Saliou. génération Serigne Saliou may a daara ji. di ñaan yàlla na yàlla li ñu sëñ Cheikh ñaanal barki démb yàlla bu mu naar saay te naar saar Mbàkke baal la ndax mooy baayam di ñaanal ñëpp di wax ne képp koo xam jël si nga ko ci soxna Aida ren bu déwee ne yàlla nga bokk ci ñu koy joxe gudd fan ak wér ngeen ñaanal ma ko ma ñaanal leen ko ñu doxal te xam ne soxna Aida yéene ji yaatu na lim bëgg yaatu na jàmbaar nag saa yu defee gën a yokk njàmbaarteem gën a yokk góorgóorloom site internet yi lii ngeen def yéen idaani mënuma la fay parce que lii nga def mënul weesu social lii nga def social la nga sa fem bi bu ko xeeb na xam nga ne lu baax a fi am nga wëri lu baax li jëli lu baax li wane lu baax li kon boog sëriñ Salim nga bëgg sëriñ Salim nga yaakaar faramaareen bay sarak damaa yaayam yéen a bokk yaay kon na ma ne yàlla na lay yàlla defal jàmm yàlla na doon tele ci barke sëñ Touba wala bu déwénee lu waay di wane yàlla bu la ci kenn ëppale ci barke Seexul Xaddim ñi bokk ak man liggéey bi sant naa leen ñi ko fi jël si sant naa leen nit bëgg naa joxe sax te nit ñi mere la ndax nag lu ne mën nga koo am ci àdduna lu ko ba mu des nit. li ñu ma defal cofeel la. am na ñu ñëw ngir bëgg sama njàmbaarte li may def bëgg xool bég tax ñu ñëw waaye jël si indiwu leen. Mm-hmm. am na ñoo xam bi ñu ba fii sax dañoo dem jënd ji dawlin di dolli. kon nga war a xam ne ku ne fekk cinéma jànkatu xasaay ji mënuma leen fay ñoom sama budget ci ñoom. sëñ Touba rek laa ko seedeel sëriñ Saliou mi yor budget te bëgg xasaayit yàlla na ma dooleel ci budget bi ci barke sëriñ Touba Seexul Xaddim soxnaay de soxnaay de ñëpp la kenn du ko baxal kenn du ko macaroni soxnaay de dañ koy omelette teg la mayonnaise la ku nekk kay soxna Aida ñëpp la am te na ma ñëpp bañ a topp ci samay kàddu mën naa mm. juum waaye nañu ma xoolee seen bopp mm-hmm. xoolee ma sëriñ bi man sëriñ bi rek laa bëgg man ku may xool rek xoolee ma sëñ bi te lu ma waaye di jëfal jëfal ma ngir sëñ bi kuy ànd ak man àndal ak man ngir sëñ bi ku may jàpp jàpp ma ngir sëñ bi sëñ bi rek laa am barki sëñ Touba. maa ngi woowaat ki nga xam ne jarul may waat sax mais damay soññe muy kan sama centeur le centre du peuple le soir du peuple Wally Balago Seck sa yaay macha allah di aussi di woowaat nag ñan ah ñi nga xam ne ñooy équipe nationale waaye moom benn jour ku jum juum ku juum mais équipe ku lim juum équipe nationale baay wu ma leen kenn kii seen yaay la day di ñaanal chaque jour te am ñoo xam ne ñu bëgg a def social mais duñu xam fu ñuy jaar numéro bii daw ci barre d'écran bi numéro sama yaay la lépp loo xam ne def nga ko ci xeebul xeeb mooy defal yàlla. maam Cheikh Fall dafa toogoon ak mag ñi neen nan la yàlla sant kenn ku ne di nuux nuuxi naan lii mu neen yàlla tax la sant tax lan mooy loolu mu ne def te yàlla tax nit ki nag booy da def te yàlla tax bul def ngir kenn xeebul dërëm xeebul ñaar dërëm lépp lu ci waay def mu defal la ko ca boolu suñu borom ba nga xam ne moom rek mooy fay muy soxna Aïda Saliou la grand voyant nekk fii ci parcelle unité 3 ci ginnaaw cinéma bi macha allah kon nag maa di bàyyi incha allah beneen yoon incha allah di ngeen gis yeneen image incha allah yu gën a garaaw parce que nii lay def ba koor gi jeex tàkk te incha allah ni mu joxe ni euh, ndogu bi ak yëpp xaalis nag bu ma jox kenn jox xaalis lépp lu ma waaye di jox na ko def geste indi ko jox ma ko na doon ceeb mbaa mu doon diwlin mbaa mu doon lu nit ñi soxla ñu joxe ko bu ma kenn joxub xaalis waaw jërëjëf dégg ma kenn jox jërëjëf mbokk jullit yi mbokk taalibe yi di sant yàlla di julli si yonent bi di sant Serigne Touba Mbacke mi tax ñu dal ko. di ñaanal Cheikh Mouhamadul taxa Mbacke mu yàgg fi lool te wér. noonu la ni ñaanale kilifa diine yi di ñaan jàmm ci réew mi laaj nga ma laaj ba solo laaj nga ma laaj boo xam ni sawar naa see tontu ndax ki koy def maa moom dañoo yàgg. defe naa ni bii du tey rek la ko soog a def. depuis mi koy def ba léegi maag Lamine Mbaye mii ñoo koy ànd ak moom di joxe social soxna Aida bu tabaski ñëwee dina wàcc xar yu bari te xar bu ne dina jël trois cent mille wala quatre cent mille te social bi da koy njëkk ci ay bokkam bu ko njëkkee ci ay bokkam ñëw ci jullitu yàlla yi ku war a am am dafa naa ne bërki démb ceeb bi ñoo ko wàcce ak suukar si ak diwliñ ji ak tàndarma ji li mu fi wàcce si ceeb kenn xamul nu mu toll koroog bi mu ko wàccee dañ ma peex ak Lamine mbay bala maa dem fenn damay dem ci daara alxuraanu Serigne Saliou ji ndax nu ma mel Serigne Saliou la ñu dem ci daara ji la fa ndong la nekk si ay donga mënoo leen a wàññi ñëpp Serigne Saliou lañ leen tuddee mu wàcceel leen ceeb wàcceel leen diwliñ wàcceel leen suukar wàcceel leen meew wàcceel leen couscous wàcceel leen lépp loo xam ne rek dañ ko war a jëfandikoo ci koor rek soxna Aida wàcceel na leen ko may wax bokki Sénégal jëmm ji ñépp war nañ ko bàyyi xel di ko dimbali ndax lii mu def tey jii si social boppam la ko def alalu boppam xaalisam la génne dem jënde ko ceeb suukar diwliñ di ko dimbalee doomu adama yi kon lu mel ni ku mel ni président Macky Sall mi nga xam ne yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax moom la fi suñu borom teg di ko ñaanal jàmm fi mu bëgg àggale Sénégal yàlla na fa àgg waaye ku mel ni soxna Aida Marème fay Sall war na koo xool gestu ko xam ne moom soxna Aida Sénégal la ko ñor ku mel ni waalo Wally Wally Wally sekk doomam war na koo gestu képp kuy def lu baax rek te nekk si attan rek war ngaa jàppale soxna Aida mu Serigne Saliou ndax jàmbaar la mi ngi tàllal loxo nag tàllal loxo nag boo ko déggee lu waaye am na nga indi boo indee ma booleeg li ma am la doomu aadama yi soxna Aida moom lu ko waay indi rek fekk nga moom mu génn alalu boppam ndax Serigne Saliou woo ko defar démb rek bi ma nekkee Touba damaa taxaw si barabu Serigne Saliou bi defe naa vidéo bi envoyé nag ko ba ma julli àjjuma Touba taxaw si barab bi ne soxna Aida Serigne Saliou maa ngi si barabu sangam bii soxna Aida lu mu man ren bu deew na yàlla na ko man gis nga soxna Aida moom man si hôpital yi moom man si facture courant yi moom man si néew di doole yi mbënn mi bi mu ñëwee dafa dem yëmbal koñ ba mu dëkkoon ni bala maa def dara sama yaay yëmbal la dëkk bi ma toogee seetaan waa yëmbal mbënd mi toj seen i kër yàq leen damay dem def fa social jënd ay moto pompe jënd ceeb jënd diwliñ jënd suukar soxna Aida daal ku jar a ñaanal la. ordre yëpp la jënd moom wàll gi muy def di seet bu ko neexoon def ko si boppam ak njabootam waaye lu ko yàlla jox si seet gi muy seet bu noppee social la koy defaat kon kooku jar naa gestu jar naa jàppale kon may wax président Sall. soxna Aida jar naa jàppale Marème fay Sall soxna Aida jar naa jàppale Waly Balago Seck soxna Aida jar naa jàppale waaye du nuyu xaritu boppam alin Sow xaritam doomam waaw moom sax bëggul ku ko tudd moom bëggul kenn ku ko tudd ndax bu nu ko tuddee soxna Aida sax da koy bañ kooku jàmbaar la ñu ngi koy ñaanal waaye may wax daal ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu état nañu gëstu soxna ayda tey jii li mu fi def lii lépp alalam la korog bi mu wàccee ceeb bi ñun ñoo ko fekkee dërëmu kenn demagu ci moo boole ñaqam boole dooleem boole li ko yàlla jox mu génn ko dem ci magasin yi jënd ceebu diwlin xoolal tey kër gi ni mu mel. li fi nekk tey jii ni mu mel parcelle mbedd mi daa fees dell dañoo mujj sax soxna Aida ni man ñi nga xam ne sax ñoom laa bokkal nanu ñàkk jaamu yàlla yi am. xoola loolu yow loolu jooju jëf la ñi nga xam ne ñoom laa bokkal nanu ñàkk waaye julliti yàlla yi nga xam ne duma tas seen yaakaar peex. nan génna ceeb bi génn tàndarma bi génn eau bi génn meew bi séddale leen fi ne nii xoolal lim def daa joxe joxe joxe joxe fi ne lig si leen bindaat kaye bi daa feesaat dell mardi la joxaat ñëpp randiwu te mardi bu kenn ku ne boo ñëwee di nga am saaku ceeb di nga am diwliñ dinga am tàndarma di nga am suukar xoola jëmm ji kese di ko def kon rawatina nag waa Sénégal nanu ko nan ta soxna Aida tàllal na loxo ndimbal gii nag ku si def sa loxo dootoo nëbb yàllaa tax ngay def ak yonent bi social moom ku ko def yàlla nga ko defal soxna Aida nag social gii muy def woo Sénégal gépp équipe nationale joueurs yi ku mel ne Sadio Mané ah, Aliou Cissé entraîneur bi ñi nga xam ne ñoom ñooy départ di onze yi football yëpp soxna Aida woo na leen waaw ñiy départ de football ndax soxna Aida nag bi mu méttee ñëpp wax soxna Aida taxaw fii ne Sénégal nii lay demee bii nii lay duggee Sénégal ñiy wax ne ñëpp nopp coupe bi dina ñëw Sénégal qualification coupe du monde bi daal taxaw fi ni coupe ki Sénégal day qualification coupe du monde kon joueur Sénégal yi 22 yi 11 yi départ ñëpp nañ ñëw social bi woo nañ ñëpp wasalaam. télé bi nag maa ngi leen di ñaanal fi télé yi àgg yàlla nañ fa àgg man mii di wax maay peex géewlu sëñ Bamba soxna de sama jigéen la sama xarit sëñ Bamba ko ñor si sëriñ bi lay def social lay def madame fay Sall son excellence góor madame fay Sall góoru président Macky Sall woo nan la ñëwal mardi lan joxewaat rendez-vous te li fi wàcc tey bi fi wàccee mardi soxna Aida dina tàllal loxoom tàllal na loxoom nag balaa mardi na ñëpp ñëw aide yi na ñëw social yi na ñëw diwlin yi na ñëw suukar si na ñëw tàndarma ji na ñëw ndax man mii maa yor kay bi tey bind te ñi ma bind fees na kay bi te mardi laa jox ñëpp rendez-vous wasalaam